tali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéen ñu xëyandoo yéen gi di réew mi ko di jenxëy di xibaar naan ñu njiitul parti réew mi di Idrissa Seck noppi géeg moom la nekkee woon jamono ji génn na wax na ci élection présidentielle 2024 waaye nag moom njiitul parti réew mi ba léegi xelam ma ngi moom Idi wax ne parti mbii di réew mi deltuwul ginnaaw te desul bi di réew mi ko di jen Assane Samb xëy jël xalimaama na njiitul parti réew mi di Idrissa Seck jamono ji mën na ñoo wax ne dafay sonde askanu Sénégal amul lenn lu leer loo xam ne Idi daan na koy wax su dee am na wax lu leer mooy Mbaye Dione moom nag daan nay wax ne parti bii di AFP seen candidat ci élection présidentielle mooy ki Benno Bokk Yaakaar di tabb yéenekaay gi di Source A nee na élection présidentielle 2024 ak siigu la waaye nag nar naa yëngu ndax jamono ji déclaration yi ma ngi mel ni tulleeg màlle yéenekaay gi di Le Quotidien yor yor Déthié Fall nee na candidat la ci élection présidentielle moom Déthié nee na pare na lu leer loo xam ne Idi daan na koy su dee tas ko du xabaar bii di Mamadou Ibra Kane moom tim daan nay taxawal am mouvement ma amul lenn loo xam ne jombale na ko boppam ba tey ci journal bi maître Moussa Diop moom nee na candidat la ci élection présidentielle 2024 daan wax ne bii la yoon maanaam du ci deltu ginnaaw yéen a kaay gi dala ko di cee nee na njiitu réew mi di président Macky Sall am na njàppandal bu bu Thiénaba nee xalifa bu Thiénaba moom dëggal na am benn nu mandat yéen a kaay gi dëgg Macky Sall am na sañ-sañ sampan dëndam ci élection présidentielle 2024 ndax Macky Sall benn quinquennat la def am na droit def ñaareelu quinquennat waxi Aïssata Tall Sall la ma ngi ci journal bi di Source A yéen kaay gi di Rewmi ñu xëy fekk fa maître Moussa Diop moom nag dafa njortu ne ab deal moo am diggante Macky Sall ak maître Abdoulaye Wade ngir nag delloo si waat Karim ci réew mi ndax jamono ji li nga xam ne moom la ñu seetlu lu leer loo xibaar naan ñu Idrissa Seck du ànd ak Macky Sall ci élection présidentielle 2024 ndax nag Macky Sall dina dàq Idrissa Seck wala du ko dàq loolee ab laaj la boo xam ne journal bi moo xëy ko laaj yéen a kaay gi de Les Échos nee na maître ak jabaram dellu si waat nañ ci réew mi ndax ginnaaw ñetti semaines yoo xam ne Abdoulaye Wade jóge woon na ci mi dem ca diwaanu Paris la France moom maître Abdoulaye Wade dellu si waat na ànd ak Viviane Wade yéen a kaay ñoo xam ne nee nañu candidat lañu ci coalition Yewwi Askan Wi loolee ci ñoom yéen kaay gi de la mandat ñu xëy fekk a Matar Diaw mi nga xam ne mooy coordonnateur Pastef ca diwaanu Madrina moom ak ñi mu àndal doon ñu amal am daje ay manifestation ngir nag ñaawlu bu baax a baax njombe a giraawal yi nga xam ne moom la Macky Sall nekke ndax ñoom Matar Diaw dañoo gis ne bëri na ñoo xam ne Macky Sall teg ne leen loxo daal leen di dugal ci kaso bi ci anam boo xam ne tegu ko fenn ndax ko ci mel ni Serigne Assane Mbacké ak ni dof a ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne Macky Sall dugal na leen ci kaso bi ñoom ñaawlu nañ bu baax a baax mitin bi nga xam ne doon nañu ko amal ci diwaanu Mbacké te ñu tere leen ko tollu ci téeméer ak fukk ak ñett ñoo xam ne ci Pastef la ñu bokk jamono ji dugal nañ leen ci kasu bi ñaawlu na bu baax a baax gi nga xam ne jamono ji moom la ñuy def Ousmane Sonko ñoom Matar Diaw li ñu xam ne ci biir journal bii de la mandat nee nañu danañu jano ak Macky Sall lu mu ci bañul bañuñu ko ci bañu ñu si bu ñu saañum ngera ndax ñoom Ousmane Sonko la ñu gëm ne kaay gi de la Soleil xëy ñu xibaar nañu njiitu réew mi di président Macky Sall ma ngi ci ab tournée économique sa diwaanu lu toll ci 289 milliards yoo xam ne Macky Sall dugal na ko ci juróom-ñaari at yi journal bi de la Soleil moo xëy di ko faram-fànce yéen a kaay gii de la point nee na Macky Sall dina def sa diwaanu Sédhiou altine ba àjjuma ministre bi ñu dénk wàllum culture di Aliou Sow borom moom nag jamono ji ma nga sa diwaanu Sédhiou ngir na xàllal yoon Macky ngir wisit bi nga xam ne moom la fay amal bëri ay communes yoo xam ne moom professeur Aliou Sow wër na ko daal leen di jàppale ngir nag ñu mën a accueillir président Macky Sall yéen a kaay gii de la quotidien xëy duñu xibaar ñu ma nga sa diwaanu Sédhiou altine ba àjjuma la a géntaloo waat ñi nga xam ne ñooy waa Sédhiou ndax nar ne leen faa dig loo xam ne waa Sédhiou danañu wéy di reefee yéen kay gi de Le Quotidien yor yor nee na Dakar dem dikk jamono ji ma ngi ci ay jafe-jafe Dakar dem dikk demul dikku la la ko waral bokk na ci dañu ko daal di politiser ña nga xam ne ñoo fay liggéey salaire yu bon la am yéen kay gi di ci mbiri Fulbert Sambou ak Didier Badji askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci département bi bi ñu naa ci gox bi di Bilis Kassa ñoom nag mer nañu ba mara détaillé ndax nee nañu seen ñaari doom yi nga xam ne dañoo jekk-jekk na mes na menteñ ba léegi léegi seen xel daf cee tey te li nga xam ne moom la état bi wax ñoom nangu see dégg dara nangu see gëm dara ndax nee nañu loole waxi bàll puy de la ndax nee na bu ñu leen bëggee gëm loo na leen Fulbert Sambou dafa lapp loole ñoom mënuñu ko gëm benn yoon te ñoom li ñu jàpp mooy état bi waxuñu leen dëgg njamono ji nag gis nañ ne état bi amul benn taxawaay bu ci amee nee nañu armée ak gendarmerie dañoo war wax ci mbir mi yéen a kaay doon waxtaane mooy fitna ak jafe yi nga xam ne moom la jigéen ñi di jànkonteel ci seen biir néegu sëy ana nan la ñuy def ba di jàmm ak kaaraange ci biir néegu sëy moom la ñu doon waxtaane sam samedi bi ñu génn ci seen conférence bi ndax nee nañu gis nañ ne sëy yu bëri dafa am ay jafe-jafe am na si sëy yoo xam ne dañoo daal di tas ci kanamul njiitul MEDES di président Mbagnick Diop fa la ñu ko doon waxtaane moom président Mbagnick daan nay jaajëfal bu baax a baax délégation yi nga xam ne ñoo jugee woon Touba ak Tivaouane ak Ndiassane yéen kaay gi di sunu lambo nee na face à bu mujj bi nga xam ne moo doon am diggante Reug ak Sa Thiès tàngoon na jër lu jëm ci wàllum mystique xa xarxa fuuxa maanaam moo yàq ndaje surnal journal bi nee na dina convoqué ñaari mbër yooyee déglu leen balaa combat bi agsi